waaye fi may ñëwee rek mooy ci làmb ji parce que làmb ji nekk na bésu 4 avril nekk bés boo xam te ne bésu indépendance la bés boo xam te ne bés bu moomee suñu bopp euh, bii cher na amateur yi kaas nañ ko waaye teewul dem nañ seetaan mais la yóbbu woon la ñu gisul keroog ci bés ba xaw ma nag yow naka nga ko jàngate xam nga làmb lu ne am na fi wax naa li la mbéy gi li Tigre de na ma jéggal mhm. ay doomam jéggal ma ay bokkam jéggal ma ay supporteram jéggal ma Aline Fall bu waalo ak Mbaye Guèye la Tigre de Fass xam nga lu yàq arène Sénégal cummikaay bii ma commencé kaas Aline Fall dafa ñëw samp cummikaayam mbay Guèye ñëw samp ni fii Aline Fall nekk lay samp bu ma juumee ñu ne ma da juum mais Aline Fall bu waalo laa ko teg coow loolu moo tax arène Sénégal ñu sàqi ko amateurs yi yóbbi bant ñu yóbbi sées ñu yóbbu porte ñu yóbbu zinc ba arène Sénégal tas. maa ngi jégaluwaat màngalu roi des arènes bëri na ak Birahim Ndiaye ci wàllu xeltu làmb Birahim am fu mu ko egg mu ne nii ci faar gi te làmbaa ngi continuer ba tey Eumeu Sène dafa daan Balla gay deux te Balla Gaye dàq bëri ci mbër yi ndax mbër yegg ko ko seereel mbooloo ma gis na am ku jiite réew mi ñu nekk da ngay daan Balla Gaye sax fekk na moo la man leen rek ma naqadi ba ma naan moo fi man dan naan li mu nekk sama doom a tax waaye amateurs yi atte nañu arbitre yi àtte nañu CNC àtte nañu bu ñu doon def diplôme numéro un Balla Gaye lañ koy jox bu ñu ko ko joxul dañ koy xotti ba tax na may wax rek ni combat wu keroog bi erreur bi njëkk am mooy Eumeu Sène waa këram dañoo ñëw ci làmb ji jël seeni barrières ñi fii lañuy installe la dëggeer une heure fekk na ko ci stade ba mu ñëw samp caw am fa service d'ordre bi taxaw taxawaay bu rafet ak waa CNC ñuy wax ba lak waa kër Eumeu seen di garder zone bi nu xalaat ni fa la Eumeu Sène di teg ndax boobu ñu ngi xëccoo penku bi. Eumeu seen bi bu ñuy dugg si ñu di ko seen dafa ñëw ba fi ñu samp suñuy ndënd pour war a tuus wuti fa mu teg fa cumme kaayam waaye bi mu ko fa tegee ba pare dafa indi jàmm ju sedd guy ndax Eumeu seen togg naa ci baaba kër si ni man du ma ragal Eumeu seen suma xol la nekk ndax dafa yaru dafa baax foo ko seen bëñ yi ngay seen mais làmbaay métier mbër la mu ñëw samp cummekaayam tuus tuus moo xam ni tuus mi jar na juróom-benni junni tuus mi jar na ñaar fukki junni ndax am na ñoo xam ne tuus leen indi ci làmb ji. Lac de ñëw tuus maa ngi gërëm ñi diriger làmb ji muy waa CNG di gërëm kilifa gi nga xam ne mooy kilifa police ñu joxoon ko làmb ji mu gérer ko ndax bi ma leen ñaanee xam ne Balla Gaye Lac de bu wëree ci zone Pikine mën nañ ko sànni kanet yii may kaas wala ay butéelu saw ma ñaan chef bi ak waa CNC ñu may ma la dëgër jaar ci biir terrain bi dem samp tuusam mais suñu tëggkat fi mu nekk ak barrière Eumeu Sène bi mu def ci mikaayam zéro benn nit ku nekk ci cumukaay Eumeu Sène sànni woo ndox sànni xeer ngir yaru Eumeu Sène ba Lac de Guiers tuus ba pare kenn ku ne dellu sa cumukaay ñu def seeni gàllaaj def seeni programme entraîneur yi joxe seeni xel arbitre bi suuf la ñu bëre ku programme bi nga indi moom nga bëre waaye waaye arbitre yàgg naa jox décision arbitre yàgg naa yëkkati loxol bër Modou loo defal nuñ ko ko defal nuñ ko Eumeu Sène defal nuñ ko Gris Bordeaux defal nuñ ko mbër yu bare niil ah yàgg na ci làmb verdict boo xam dañ koy joxe ci wàllu décision arbitre yàgg na ci làmb jëlaam yàgg na ci làmb Lac de Guiers da daan bëree Eumeu Sène di bëree mais nañu ñeme wax ji Eumeu seen wax ju rafet la wax maa ngi ko seetaan actuellement kaddu yi dara ñaawu ci mais man mi xamoon Eumeu seen day xam naa ni keroog Eumeu seen bi mu ñëwee bu doon sama mbër su ma demee ba wéet mën naa ko ba jox mais dinaa ni sama mbër mii da tey jekkul Eumeu seen mast am combat te bëreewul Eumeu seen ay kurpeñ mënu koo tere bëree Eumeu Sène nga jàpp ngemb du ko tere bëree mais keroog Eumeu Sène bëriwul naka waa Pikine nangu xam ni Eumeu Sène suma njaboot la lag de Guiers sama njaboot la lag de Guiers mayuma dërëm Eumeu Sène mayuma dërëm yàllaa ma wàcc géejaway mënoon naa dëkk Pikine mais naa wax dëgg ngir yàlla